mbokk yi safam 7 TV maa ngi bëgg ñëpp di di njëgoon chef shot acteur gën a fës si tey bi tombé le vendredi 23 février dañ ko commencé foofu sa Allemagne ak club bi di Bayern Munich waa Bayern ñu ngi daggal ne seen entraîneur bi di Thomas Tuchel dina jóge si banc Bayern su saison bi jeexee kon nag jamono toll nag Bayern Munich ñu ngi wër ku mën a remplacer te nag seen xel demul si kenn ku dul si Xabi Alonso nekk entraîneur bi di Bayern Leverkusen dafa tàggoo ne su saison bi jeexee moom tamit day jógee si banc Liverpool fu mu toll ñoom bëgg nañu Xabi Alonso ngir nag mu ñoo remplacer Jürgen Klopp si banc équipe bi jamono toll nag Liverpool ak Bayern Munich ñoo xëccoo entraîneur Bayern Leverkusen bi di Xabi Alonso ba léegi ak Bayern Munich fu mu toll nii nag ñu ngi bàyyi xel défenseur Paris bi di Marquinhos kon nag ki di Marquinhos jamono ñu toll mu ngi jar lu toll ak millions d'euros su fekkee nag Bayern Munich bëgg na ko xaalis boobu noonu lay fay ngir nag am ko Jürgen bi nga xam ne depuis mu ne day jógee si bangu Liverpool club yu bëri jot nañ ko jege ngir nag mu ñëw entraîné waaye nag agent wu Jürgen moom nag xamal na club yooyu noonu a noppalu at laata nag

Paris Saint-Germain pare nañ pour ngir mën a am militaire FC Barcelone bi di Frenkie de Jong kon ñi di waa Paris si mercato bi ñëw bëgg nañoo song dossier Frenkie de Jong Victor tànn na club bi nga xam ne football muy nag Chelsea kon nag gannaaw bi nga xam ne club yi mel ni Arsenal Manchester United ak yeneen club yu nekk foofu sa bëgg nañ ko signé moom nag Chelsea la tànn ngir nag football fa Aston Villa Everton Wolverhampton ak Crystal Palace ñooy xëccoo joueur Arsenal bi di Emile Smith Rowe euh, kon daal Manchester bi nga xam ne jamono ñu toll

ak championnat Sénégal Ligue 1 ak Ligue 2 kon championnat bi day yaa siwaat ñu ngi si fukk ak ñeenteelu journée bi suba lay tàmbali di ya samedi 24 février su 16h30 jotee jàmbaar dina laale ak Gorée jamono bu Fatick may am Teungueth FC Dakar Sacré-Cœur am Sonacos dimanche 16 may laale ak AS Pikine Linguère bu Saint-Louis Casa Sport lay am Génération Foot may dalal Stade Mbour Guédiawaye dalal la Jaraaf Ligue 2 bi. programme fukk ak ñeenteelu journée bi suba si samedi bi lay tàmbali 16 h dina am DMDOFC Oslo mooy am Thiès FC Refs Excellence Walidane lay am Kër Madior mooy dalal Duc NGB Ñaari Tali dina laale ak AJEL bu Rufisque Amitié FC am HLM bu Dakar Ñambour am RSO foofu la ñu xibaar yi di leen jox dig daje beneen yoon seen xibaar di leen ñaan activer notification pour jot information yi